nekk Sénégal yéen seen moroom yaa ngi leen di raw seen xaalis yi leen raw seen avenir di leen raw Aliou première communion ama cochon déggatoo leen ko cochon seen 6000 mille yi suñu 6000 milliards yi sax laa wax ndax duma ci seppi sama bopp ndax am naa ci 400000 cochon placé na ko fële cochon ma Macky Sall bu ko tekkatule ci gouvernement bi il en a rien à yenn yi nee nañu. cochon prête non la mais bu nekkee prête-nom tamit c'est un bon prête non parce qu'il a le boulot boo xamante ne tey mun na ko permettre mu remplir poche mi te dara du ko ci fekk tey cochon mu ngi rawale mu ngi placé mu ngi def lii mu ngi def lële cochon boobu nga xamante ne c'est le plus grand voleur cochon am na suq mooy suñu dëkk voleurs yi dañ leen di suq ki leen di toroxal dañ koy sukk suñu dëkk la esclavage des ba pare moo tax on est très mal placé pour dem ne dañuy génnee nooteelu tubaab bi parce que ku nangu doon jaamu cochon yow bu la Macron rendiwee sax dagan na parce que nit dafa am lu mu war a bañ ci boppam mais malheureusement Sénégal ñu bari bañ leen ko moo tax ñu nga xuloo xeex bi xam nit balaa muy am caacu xeex day am ambition ambition du benn paquet greffage ambition du benn pantalon bu rafet wala benn chemise bu rafet ambition mooy koo xamante ne day yootu li nga xamante ne tey dina ko permettre mu dund aisément mooy liggéey bu baax di dox ci lu baax bu bëggee lu mu am envie fu mu am envie dem dem fa loolu ci vision la bokk loolu ci ambition la bokk tey malheureusement dafa am ñoo xam te ne suñu Sénégal xamuñu lu dund bu neex aspiré wuñ ko sax gis jéemuñu ko sax jege bu ñu amee yëre bu baax yëre ak dàll ak robb baax na moom da ngay gis koo xam te amul liggéey xëyul gontuwul mais il est il est heureux dans sa peau parce que am na dàll am na yére am na greffage am na lu mu xeesalee ñun suñu dëkk ambition nit yi. ci loolu la nekk boo toogee télévision de du matin au soir nga analyser ambition sénégalais yi ñenn ñu ci gën a bëri sénégalais mënoo ko invité balaa muy kontaan mooy nee nga ko yëreem rafet na dàllam rafet na sa kër rafet na mooy ce les gens voient quand ils disent que c'est bien la personne le sénégalais est bien dans sa peau. te damay gis ñenn ñi bokk ci pays développé yi ñoom balaa ñuy bien dans leur peau mooy côté liggéey ñu am liggéey boo xam te ne dafa stable di leen rapporter xaalis plus ñuy am xaalis plus ils sont bien dans leur peau moo tax tey Sénégal nit yi mënuñu jóg xeex ils peuvent pas parce que seen ambition moo limitée vous avez des ambitions limitées réduites et ses ambitions réduites fait que le Sénégalais ne se lèvera jamais. Une personne qui, qui s'arrête sur un greffage auto auto sax même auto sax c'est trop demandé ah mën ngay gis koo xamante ne day nekk Sénégalais ndeysaan boo ko rombee mu ne la sama oto bi mais boo gestoo oto bi mais oto bi xant na oto bi bon na amul sax ambition ne man il me faut un travail qui va me donner une plus belle voiture il faut mu ba di nga esprit limité boobu noonu moo tax ba ñoom Macky Sall la samp seen dënd di leen racc comme ni ñuy raccee nag di nga nu ñuy nu ñuy traire vache noonu lañ leen di traire comme des vache parce que li ngeen bëgg ci àdduna moo bariwul bokk ñenn ñi dañu jël seen bopp dénkaane ko ndóol xaritoo ndóol lonkonteex ndóol ne ñoom ndóol du ñu bàyyeex moom duñu ñu bàyyanteex ndóol mais man mosuma gis de gens qui sont tellement contents d'être pauvres xam nga boo ñëwee Europe la pauvreté c'est une c'est la honte là fii tubaab bu ndóol bi gàcce la ci moom mais ñun dañu jël ndóol boobu bokk ak moom ndayax bàyyin duñu lonko duñ ko bàyyanteex moom mukk mukk mukk bu ñu paree nag ñu ne yàlla moo ñu dogalal ñu ndóol léegi yàlla bi la sàkk sàkk Macky ñu ne ñun ñëpp dañu yemale mu may la xel may xel boobu Macky Sall yow boo nangoo jël sa xel nelaw loo ko ba saay bu Macky Sall ñëwee nax la tekki bul ko jiiñ yàlla ñenn ñi nag bëgg a nekk xaritu ndóol mbokkax ndóol bokkax moom ndayax baay moo tax même Marème fay Sall bu yëkkatee douze may leen dañuy kontaan yi nga ko mel ni Coura Macky boo gisee mu analyser xam nga ñun Sénégal fa la ñu problème bu ñu toogee ba nga xam te ne nga xam te ne amuñu liggéey mënaluñu seen bopp di dem di ñu yelwaanal pour ñëw dundal ñu dundal suñuy doom suñuy doomu taalibe yi ñu amul liggéey ñooy dem wuti ji ñaani ji ñëw may leen ambition boobu noonu parce que dañu xool dëkk ba nga xamante ne gis naa ku ñu ne dafa baax mooy kuy joxe social yéen ak social yéen a bokk ndax bàyyi Sénégal moo nekk dëkk boo xamante ne dañu jël sociale rek mbokkox moom bëgg ko seen biir xol nag kuy def social mais mën nañ lay partager dix mille fois. gumba woo leen làgg woo leen patoo leen vous êtes jeune mais lan moo tax ñenn ñi ndeyax bu bokk ndeyax bàyyax social ñi nga bokk ndeex bàyyax social moo tax ba ku toll ni kuramaki tollu fële États-Unis mu ne mu ngi leen di yelwaanal ku jóg amul liggéey sax ne dafay ubbi association ne da leen di yelwaanal parce que dafa xam ne Sénégal dafa bëri ñoo xamante ne ñoom ak social ñoo bokk ndeex baay saay bu ñu xëyee fa ñuy tàllalee la ñuy wër ngeen am ay politiciens yoo xam te dañ leen koy wër leen parce que comme seen ambition bariwul toq lañ leen di jox toq toq toq ngeen di ci lekk as tuuti man maa bañ petits yeux ku tuuti bët dinga ñàkk courage bi xale yi am pour bañ a xeex tuuti bët moo ko waral yi nga tubaab bi il voit tellement grand ba nga xamante ne ñoom bu xare jotee ci kanam la ñuy toog di dem di xeex ji yi nga tubaab da leen analyser Macron dafa xool seen cerveau yi ba mu analyser ko analyser ko di ngeen gis mille 2024 Macron discours bi mu defal Alassane Ouattara ne ko ne yow damay encourager sa candidature parce que yaa téye stabilité dëkk bi. discours boobu la leen fii tegal Macky Sall la ni moom mooy entretenir stabilité dëkk bi ndaxte yónni nañ leen ba pare xam nga sëy woon na ca ngoro ba dañ ko fayut capitaine Dieye ñëw na nee na leen bu armee français jóge Sénégal ndax ñooy maintenir stabilité dëkk bi lu tax mu wax leen ko parce que le muet la àndal lëx muet ak Macky la ñoo bokk ñoo bokk mbuus ñoo bokk verbe ba ñuy conjuguer matin midi soir ñu leen di préparer psychologiquement pour tegal leen fi Macky Sall 2024 mu continuer di survivre di di mu continuer di servir yi nga lemuye nekk président de la république sax soxalu ko il en a rien parce que ku sàcce quatre 80 milliards kooku mu nekk président mu bañ a nekk président il en a rien xam lu muy wut garantie bu koy permettre quatre vingt milliards yooyu noonu mu di ci lekk ndànk ndànk doomam di ci dawal ay ay ay Porsche ay Ferrari ay Harley Davidson di ci jënd ay xajoo million di leen romb moom nu mu koy assurer lay wut mais comme on est dans un Sénégal boo xamante ne dafa am toujours ay nit yoo xamante ne petite tête lañ leen di wax petite tête petit cerveau. ñi nga xamante ne seen seen maayin yi ndox nekku ci tokk ndox sax neew ci ndox ba daa ngeer ñooñu tey ñu ngi continuer di topp ci ginnaaw lu muyee mu leen di fen matin midi soir di ko def en douceur nag man doole mi daf ma neex en douceur la koy def seen quatre-vingts milliards yooyu noonu laajte leen lu muyee ak entreprise yi mu am ci monde bi yëpp ak dividende yi muy percevoir yëpp laajte leen lu mu yee quatre vingt millions yi ñaata la jur depuis ba mu ko sàccee laay wàdd ba fu mu toll nii quatre-vingts quatre-vingts quatre vingt milliards du du dërëm de quatre-vingts milliards boo ko sàccee dugal ko ci banque du duñu xool foo ko jëlee toutes les portes suma ouvertes mais li ma jaaxal mooy amul benn sénégalais buy jóg di réclamer quatre vingt milliards yooyu noonu mais quatre-vingts milliards c'est énorme aussi bien que six mille milliards yi nga xamante ni Aliou Sall moom la sàcc mais c'est énorme yi nga defa bëri ba nga xamante ne xajul ci gémmiñ mais dañu analyser ñun suñu cerveau ñun waa Sénégal ba ñu xam ne ne ñun. bëgguñu dara ci àdduna lu neex dund bu neex soxaluñu ñun bañ a xeex jaral nañoo dugg ci ndox mii di fay ba France ak contrainte yi ci nekk yépp jaral nañu ko dee dee la xale góor yi dee la mort c'est la mort au cas xamoo leen ka la mort c'est la mort yi nga tey ngeen dem xare di ngeen dee ngeen bañ a xare di ngeen dee comme choisir ngeen jël ndox mi te ndox mi wóorul ngeen yegg si ndox mi wóorul ngeen yegg si mais tey ngeen naa ngeen naa jël seen bopp rek sacrifier ko dem affronter Macky Sall boobu c'est sûr que ni dina fi jóge te bu fi jógee da ngeen di nekk ci jàmm tey wax bi yëpp bu mu gudd bu mu gàtt wax bi yëpp yëpp yëpp fi mu toll nii mooy ñi am fit pour dem xeex ji. Macky Sall ñooñu lay waxat ñi am fit pour dem xeex ji Macky Sall ñooñu la ñuy waxal fit bi du nga nekk ci internet bi di saaga rek ah. parce que saaga c'est très facile saaga di nga koñ di nga fa nekk ki gën a ki gën a ñàkk njëriñ ci koñ bi ki gën a ñàkk xorom ci koñ bi di nga ki gën ñàkk xorom ci dëkk bi ki gën a ñàkk doole ci koñ bi sax mën na saaga c'est la chose la plus médiocre li nga xam te ne moo gën a ñàkk ñàkk xorom ci xeex parce que li gën a am maanaa ci xeex mooy nga dem jàkkaarloo nit ki moo tax ñu man duma xeex duma wax damay jëf saaga ci catégorie wax la tollu tey ay jëfkat la ñuy wax bu dee fit rek fit parce que fit bi du nga taxaw di saagan fit ñi am fit mooy ñiy dem jàkkaarloo ak ka nga xam ni ne moom lañu moom la amal problème ñu dem régler ka ñun ñoo nekk xeet bi nga xamante ne ñun ñun surtout ma rawatina sénégalais ñun ñoo nangu doon jaam suñu dëkk nangu doon jaam ci dëkku euh, nasaraan si dëkku naar yi ba pare nag ñi ñi teg jaam saay bu ñu amee malheur ñun ñooy toog di leen jooyal ne ma benn lëg mareem dof na sénégalais yamu yamu sàcc di leen toroxal ñoo koy jooyal liban am na fa explosion libanais yi ñu ngi toroxal bés bu nekk ay sénégalais libanais ngay liggéeyal nga feebar mu di la forcer ngay continuer di liggéey liban ngay dem seen dëkk mu amoo droit am fa doom ñu leen di toroxal matin di soir mais am na ay sénégalais yoo xam te ne dañ def ay vidéo ne nit ñi dinañ joowal libanais yi mais ñun lan moo tax ñun amuñu fulla am fayda lan moo tax ku ñu gajj duñ ko gàjji ñun suñu fulla suñu fayda si su rek la ama pour faire des trucs méchants on peut mais fulla fayda ci tubaab ba ñuy toroxal mu gàjji leen ngeen fayu munoo leen ka te li ma gën a metti mooy ñi leen di toroxal saay bu ñu leen indilee sarax ba rek ngeen dem jiiroo ko liban saay bu indee di leen may ngeen dem di ko jiiroo Maroc ñu ngi leen di toroxal bés bu nekk saay bu ñu leen indee ndimbal Ousmane maa leen nuyu bu baax baax ngeen dem jiiroo ko vous voulez que je quitte encore Arabie Saoudite bés bu nekk ñu leen di toroxal foofu mais saay bu ñu indee ndimbal Sénégal ñu jiroo ko France bés bu nekk mu toroxal leen te président France bu ñëwee yéen ñëpp ay génn ci mbedd bi comme des esclaves de première catégorie comme temps wu esclavage yi bu tubaab bi di romb ngeen taxaw tàccu ko yéen yéen a bëgg ñi leen di toroxal yéen yéen yéen a bëgg ku leen di toroxal yéen yéen a bokk ak sa torox ndeyax bàyyi ne dee doo leen tàggalook torox vous n'en avez pas marre lan moo tax wala ñun dañu dem ba dañu chronique ci suñu toroxange dañ ci chronique xam boo demee ba nga accro ci benn affaire parce que am na ñoo xam dañuy accro ci cigarette ñun ñun bi ñun dañ dem ba dañ ci chronique léegi nag ci chronique boobu noonu comme ñenn ñi xam nañu sénégalais yi duñu ñu une bonne partie bëgguñu yeewu qu'est-ce qu'ils font comme les gens de Kouramaki dañuy ñëw présenter wu maire parce que dans ce pays tout est permis pour mën a sàcc les plus grands voleurs dañuy xool xool xool xool commencé naa leen wax nag dama leen di parce que ji nga politicien bu ñëw dinaa leen wax naka la ñuy commencé créer mouvement le politicien il commence par faire du social kaay leen ñu defal leen social ñu leen di may comme ni tubaab bi def rek Coura dafa fekkee woon ku ko gis noonu xam ne ne bi maam yàlla doon peinture asamaan si moo taxawoon nekk fii manqué na fii couleur bleu clair la fii bleu foncé Coura Macky boobu noonu mu dem ba dikk yenn saay sax day toog xeesal bi xaw a manqué day toog yenn saay xeesal bi du mët parce que xaalis bi day jeex mu toog fële xool ne ni tey bu jógee def social bi am na ay dof yoo xam ne ñëw cotiser et quand ils cotiser moom dina mën a continuer di xeesal dina continuer di takk ci or yi après mu jox ci tuuti taalibe ñaar ñetti taalibe lay dem jox tuuti benn affaire filmer wu def selfie ñoo teg ko ci internet bi on sait comment ça marche faut pas croire man maa ji nga tey ñii nekk fii naan grande dame grande dame grande dame yow ku a mag gis fële tollu fële gis kumba gawlo nekk ci social bi di dox ci social bi est-ce que ndóol na Coura Macky juddu nee naa bi ya maam yàlla doon peinture asamaan si Coura mu ngi fi woon mu gis baayam Youssou Ndour nekkoon ci social bi tekki muy toog ak ñoom ku ci nekk muy déglu na ngay wax nanga def ba tekki ci social bi mu toog xam ne yaram ji mënu cee def dara ndax mënul dara dara dara dara yaram ji dafa la caxa ba pare teg ci yaram da ko xeesal ba mu nëpp fu mu dem di wuti ji liggéey nii te nga koy seexlu li mu boolee bari ba pare déggul tubaab déggul anglais olof bi bu koy wax mel ni kaw kaw fu mu dem kenn du ko xool mu ne xaaral nag dëkk bi comme social bee marché xaaral ma laal ci social bi yeewu leen yeewu dafa jot il est temps de se réveiller yi nga Alassane Ouattara bii nii dafa maîtriser franc CFA bi Abdoul Mbaye dafa maîtriser français CFA bi ñoom ñëpp ils yàlla bi si BCEAO ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp ñoo bokk benn mbuus dañ leen di pamti pamte comme ay balu ping pong y a pas que Macky Sall y a pas que am ñoo xam bi ñu demee toog ci banwu école bi am bac plus 10 trian lañ fa doon jàng mooy feesal seen xel yi pour ñëw bu ñu paree endormir peuple bi tekk seen kaw fu n'avez pas de patriote en fait à ñi nekk Pastef vous n'avez pas de patriote tey damay xool yenn sénégalais ndeysaan xamuñu sax lan mooy patriotisme c'est triste quand tu vois kenn koo xamante ne day taxaw di live nee na moom il est patriote du wax turam muy taxaw naan li ko première dame may xar bi mu ko jëndal est-ce qu'un patriote koo xamante ne dafay wuyoo turu patriote est-ce que war na mën a am act yooyu noonu est-ce que war na mën a toog dëkk boo xam te am na 15 millions d'habitants muy toog di leen wax la ko première daam jox fàtte ne ne tout le monde devait être au même pied d'égalité dans ce Sénégal di ko bàkkoo te nee na patriote la il est pas mauvais hein mais boo xamulee quand tu ne connais pas il est parce que dama koy déglu di ko déglu ci analyse mais il est pas mauvais parce que dafa juddu ci société boo xamante ne dañuy profito ci xaalisu nguur di ci dund di ci naan di ci di di ci faj seen soxla il est pas mauvais ma damay toog di déglu laay fam di analyser ma xam ni kii du nit ku bon mais le seul hic moom pour moom il croit bien fair te li muy def noonu il est en train de nuire beaucoup de Sénégalais de vexer beaucoup de Sénégalais ku mel ni maam elle n'a rien à foutre mais imaginez-vous devant quelqu'un qui n'a rien à manger lu mu fajoo sax da koy të li nga xamante ne ñëpp a ko bokk ñu di ko seddoo seen biir ba pare ñëwaat osé taxaw seen seen kanam neleen leen je mais man maa ngi lekk ci xaalisu nguur bi. ci nga comportement sénégalais yi dañu war a xoolaat dafa am lool leen war a xoolaat lu bari ci yéen parce que ñu ci gën a bari xam nga yenn saa yi nee naa am na ñoo xamante ne dëmm lañu dañu xam ne dëmm lañu mais am na ñoo xamante ne ñu ngi def acte dëmm mais xamuñu ne dëmm lañu mooy ñi nga xamante ne ñu ngi lekk riba bi nga xamante ne moo waroon faj seen dëkkandoo. waroon def hôpital nga xam te ne abu Aboubacar moo grand xoolal mënuma la jël parce que instant bi benn portable bi laay kii yee xanaa ba mu mënee envoyé invitation si écran bi ji nga nee naa dafa am dëmm boo xamante ne li muy def moo ko tey mooy dëmm boo xamante ne wóor na ko ne xaalis bi xaalisu askan bi la mu jël ko kooku vrai dëmm la am na koo xamante ne day dëmm dëmmlu parce que xamu ci dara moom xamu ne li muy jël riba la xamul ne li muy jël moo waroon faj voisin wam voisin wam bu deewee moo ko rey xamul li muy jël moo waroon dundal taalibe yi nekk ci mbedd bi kooku ñu ngi koy initier si dëmm te xamu ko moo tax dafa am ñoo xamante ne c'est des vrai dëmm mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gouvernement bi man je les appelle des sorciers loolu tubaab di wax sorcier dëmm mooy kuy coob nit bokk ci muy leer mais ku jël li war a faj nit mu di ko lekk ba nit kooku dee da koo coob parce que dofuñu jinne jàpp leen ñi nekk ci gouvernement bi dofuñu jinne jàpp jël économie 15 millions d'habitants def ko ci seen compte wàcc nit yi di dee dañu dof dofuñu 15 millions jëluñu ko sànni jël xaalis milliards yu ñu jël jëluñu ko sànni ci mbedd bi dof xamul luy cent francs dof xamul luy milliard li ñuy def dafu ñu jinne jàpp leen mais dafa am ñi nga xam te ne dañu nekk ci population bi ñi nga xam te ne ñoo leen waroon redressé ñooñu tey dañ leen di unitier pour ñu doon di petits dëmm moo dafa am dëmm ak ñi dëmm dëmmlu ñoo xam te ne ñu ngi nekk ci yoonu dëmm mais nekk guñu dëmm je veux que képp koo xam te ne tey day lekk xaalisu askan bi mu xam ne dëmm la parce que les gens ils meurent devant les hôpitaux amul semaine bu ñu dul woo nit yi te dañu ne amul kenn koo xam te ne demoon na ak accouché ji dafa gaañ am na xale boo xamante ne mu ngi ci mbedd bi cotiser leen ko dafa am benn abcès wala dafa am tumeur xool leen ci internet bi y en a tellement vous voulez me au Sénégal les gens ils vivent bien mais la misère sillonne partout partout partout moo dama leen dafa am dëmm ak ñii dëmm dëmmuloo ñii dëmm dëmmuloo ñooñu il faut que ñu woo leen ne leen acte yi ngeen def acte dëmm la parce que xaalis bi moo waroon defar hôpitaux xaalis bi moo waroon defar école xaalis bi moo waroon defar avenir u des milliers des millions de sénégalais xaalis boobu noonu yaa ngi koy jël di ko jënd lan dàll yére robe kër. nga dëkk ci kër suul nit c'est-à-dire yow da nga sàcc li nga xamante ne moo waroon jox nit yi kër suul nga nit weer nga nit pour yow sa confort personnel li nga sa petit côté mesquin de petit type bi nga xamante ne moom la africain am ci xelam moo tax tubaab bi xam ne ne ñun duñu masa avancé parce qu'on a un petit côté de mesquinerie yoo xamante ne à deux balles mais vous pensez que si on est resté vingt cinquième pays le plus pauvre au monde c'est pourquoi lan moo tax bu ñu nekkee vingt cinquième pays le plus pauvre au monde c'est notre comportement man waxuma tubaab bi de non suñu comportement ñun suñu biir ni ñuy doxalee. ñun ñoo nul bokk bu ñu nuloon on allait avoir de l'argent comme eux mais on a combien d'or bu ñu la waxee ñaata tonne d'or mooy génn Sénégal par par jour mais da ngay tiit da ngay tiit mais on a combien de tonnes d'or qui sortent tous les jours au Sénégal moo tax ma ne leen dafa am ñoo xam te ne ñuy dëmm ay dëmm lañu di unissé yi ñeneen ñi ñu doon ñuy dëmm dëmmlu dans leur subconscience dem leen xool ñaata tonne d'or mooy moom moo jóge Sénégal di dem ci banque suisse yi dem leen xool ñaata tonne d'or ñoo jóge Sénégal di dem Canada dem leen xool luy jóge zircon di dem États-Unis dem leen xool liy jóge zircon di dem Chine Mais vous ne pouvez pas imaginer tout ce que vous avez li ngeen am yëpp mënoo leen ka xam parce que xamoo leen valeur wu li ngeen am ngeen foog ne c'est pas pour un rien ñi nekk ci life bi yëpp kan moo mës a gis zircon troisième producteur mondial de zircon qui a déjà vu le zircon kan moo ko mës a gis. mais dites-le moi qui a déjà vu du zircon avec ses yeux mu laal ko mais kenn qu'il nous vole je peux comprendre mais iñaane nañu sax jël seeni doom woo leen ci école ñu yëkkati benn zircon bu ndaw ne leen ne lii mooy zircon xale yi jàng école yëpp Sénégal amul kenn ku mas a gis zircon vous trouvez ça normal amul kenn ku ko mës a gis à part ñi cay liggéey vous trouvez ça normal ñu ne la Sénégal troisième producteur mondial de zircon pétrole bi ngeen di gis sax duñu leen mësa a won couleur pétrole bi fa muy jaar fa muy xàll kenn du leen ko won da ngeen di jékki-jékki ngeen di dee seen jën yi di lekk mazout ngeen di ko lekkaat di dee benn par benn ba suñu jën yi di lekk mazout ba léegi. c'est en 2019 la ñuy doog a xam ne ndekete diggu géej bi pétrole kese la ñu ñuy gëmloo ne gaa euh, euh, nu koy waxatee mazout bi ñuy def ci gaal yi moo day tuuru fi jën yi nekk ils nous ont toujours pris comme des manquants et ils de nous prendre comme des manquants parce que ñun ñoo bañ a jël def suñu responsabilité jël leen seen responsabilité jël sa responsabilité mooy génn ci hypocrisie déjà xool sa bopp sa moroom comme ni ngay xooli sa bopp xam nañ naan aime ton prochain comme toi-même man de loolu laa dégg loolu lañ ma jàngal bi ma nekkee xale olof ñëw ne sama boppam ma gënal bañ naa la di nga sama boppam ma gënal bañ naa la boobu noonu nga xam te ne million millions d'habitants yi ku ci nekk noonu lay doxee. moo tax ba ñu des vingt cinquième pays le plus pauvre au monde est-ce que gis ngeen bu tubaab bi di xare ngeen xool seen hymne national bi allons les enfants de la patrie bu ñu nee dem leen xare ji dem leen guerre ji dem leen xeexale ji seen dëkk amul góor amul amul jigéen amul xale amul mag ñëppay dem xare wala xamuleen nu ñuy xare xarewee dem leen xooli ji Hitler ba mu nootee woon français yi naka la jigéen yi ngembee woon seen doom yu góor yi pour ñu dem libere France c'était des femmes qui l'ont fait ils ont habillé leurs fils lan moo taxoon l'armée était obligatoire dañ ñëw rek jël patrie devant patrie devant patrie devant phosphate bi pareil nday si nii mais vous vous rendez compte on n'a même pas assez de route Sénégal nekk dëkk bu bëri phosphate foo xamante ne foo laal am phosphate.